bu yàggee du jur ay risque ci suñu institution yi l'observateur xëy fësal nataalub Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diao ak Ousmane Sonko dikk ci engagement yi nga xam ne rek inspecteur des impôts et domaines yi am nañ ko ci wàllu politique ndax njariñ lay doon am gàllankoor lu mu ci mënti doon yéenekaay bii di l'observateur ne am na ci lees waxut fukki at ak ñaar yi Macky Sall yor réewum Sénégal ca la Sud Quotidien xëy defub seetlu ni am nag wuute de am nag wuute kay ci gouvernement yi nga xam ne jot nañu fay jaar mu di bu Senghor bu Diouf ak ak bu wàdd ndax ci nguuru Macky Sall ngay gis nag ñu jël ay dogal ci wàllu yoon te duñu ko sàmm ay lajj yu ñu nemmeeku ci wàllum infrastructure ak yeneen ak yeneen yër leen yéene kaay boobee di Sud Quotidien Bougane Gueye Dany ci 24 heures muy xamle nag moom jiital gëm sa bopp ne nguur gi dinañu daj dëgg jàmm kay moom duñu ko am mukk ci langue politique gi ci 24 heures la ko xamle yéene kaay bii di Direct News ne ab tournée bu mu dippee open press tour Bougane moom jiital gëm sa bopp ma ngay dagaan baatu askan wi ngir génne ci seenub xel kii di président Macky Sall ginnaaw bi mu jooyee soxnaam si ba noppi Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp soobu na ci ab open press tour ngir fas yéene wane boppam ci jongante njiitu réew atum 2024 le soleil yéene kaay dikk ci réforme yi nga xam ne fas yéene nañ koo indi nag ci lu soxol liggéeyub huissier notaire ak greffier mu ne garde de so nag doon na dalal ñi nga xam ne ñoo di plénipotentiaire yi imam ak notable yu jokkul jug nañu takku ba dëgër la ñu bëgg rek daar daar mooy nag dakkal li nga xam ne moo jëm ci mbëkk mu jaarul yoon mi ñuy ñàkk seen bakkan ci géej gi ñu ngi woo kilifa yi nak ak askan wi yépp ngi ñu daal di jug Vox Populi moo xëy daal di fësal seenub taxawaay ci biir yéenekaay bi bés bi le jour ne nag li ñu war a jug kay bokk na ci technopole ak mbalit ma ñu fay xëpp ndox mu bon muy jaaba jonge yéenekaay bi ne toxique dëgg la toxique la kay ci askan wa fa yeewoo jamono jooje wal Quotidien di bàyyi loo xel askan wi yokkute woo am ci njëgu garab yi ci biir pharmacie yi loolee nag tey jii ca la xëy moom yéenekaay bi amal ci ab seetlu wax ci bokk ci Greenpeace xanaa xamu leen ne ñàkkum jën gi ñu nemmeeku ci biir géej gi loolee moo sabab immigration clandestine bi ndaxte muy Mbuur ca Kayaar ca Saint-Louis ak fépp ci réew Sénégal ay jafe képp la nappkat yi jànkonteel kon nag faaw ñu jël ci ay matukaay bu ñu bëggee dakkal lii di mbëkk mu jaarul yoon mi la siinekaay di ko feelu ca wet ga ni nappkat yi kay moom mbécc nañu seeni jafe-jafe taxaw fi mu toll ni nag ngir wuti saafara ci seen secteur boobu nga xam ne dafa ñàkk transparence ci doxalin bi ña ngay ñaxtu kay ci biir yéenekaay bii di la quotidien njiital CNP moom nag ma ngay ñaawlu arriéré yi am ci wàllum fiscal yi moom mu ne nag secteur yi nga xam ne moom lañ ca gën a laal bokk na ci BTP bi lu jëm ci wàllu pétrole bi enseignement bi wàllu wér-gu-yaram beeg numérique bi les échos daal ñuy sóob ci tàggat yaram wax rek ci jongante bi nga xam ne amoon na ci diggante Sénégal ak Togo mu ne gaynde yi dañoo mujjee match nul ci seen jongante boobee waaye nag ña ngay ŋàññ taxawaayu coach bi Edouard Mendy a fës ci xëtu yëglekaay a jéggi dayoo ñeel éliminatoire yu mondial atum 2026 ci diggante Togo ak Sénégal ndax nag ndam demul ndam dikkul la sunu lamb xëy nag dellu siwaat ci ñetti promoteur yoo xamante ne nii jamono jii ña ngay doxay jéego ngir combat bu war a jëm ci diggante Siteu ak Balla Gaye 2 Max Mbargane bu écurie Lamsar moo ko xamle ci biir yéenekaay bi mbokk yi li yëgënoon fës ci yëglekaayu tey jii jàmm ak jàmm Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon seen revue de